Assalamualaikum warahmatullah. ñu ngi leen di ziar ci bés bu tedd bi ci dëkk bi nga xamne ne moy mooy euh, daaru Kër Mor Khoreja Cissé ci bés bi nga xamne bu historique la muy besu ziare daaru bi nga xamne njabotu Maulana Cheikh Moussa Cissé radiyallahu anhu ño fi daje at mu jot ñew diko ziar ginnaaw bi nga xamantene euh, magum yi njëkk ya ñoo ko ku ki Cheikh Mbaye Seck ñu ñëwoon nag dalu mu Mouhamadou Al Amin Gueye ñëwoon def benn doxantu ci biir euh, daaraam jéem a dugg ci biir xool euh, ñiñ fay fekk ñu jéem a waxanteeg ñoom ci bés bii nii. ah ñu ngi nii nag biir dalu Haqqul Mubin TV ñuy ñëw ci bërëbu waañ bi seet si soxna yi fii nii ci bërëb bi euh, di dalu Maulana mu Mouhamadou Al Amin Gueye. ñu jëloon honneur bi nag jox ko sunu yaay booy yi ñu fekk fi benn yaay booy bu tedd pour xamanteeg moom mu wax ñu ki mu doon ñu soog a tàmbali ci mbirum daaru bi ak waajtaay beeg yëpp. biskay salaamaaleykum wa rahmatulah. siyaar nañ leen Baye Abdallah màggal nañ leen bu baax Baye Ali bëggee nañ leen waa Haqqul Bin TV ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax. Euh, ñu ngi leen di gis terrain bi ñu ngi gis seen liggéey ñu ngi leen di féliciter bu baax am na solo ñu ngi leen di encourager aussi ah, di wax ne rek man la yaa Suzanne euh, taalibe élément xakkul mu biin bu bu bu bu suufe <laughs> waaw ñu ngi nii ngeen fekk ñu si waañ bi xam nga ñu doon defar xéewal yi ngir rek ngir berneel jaam ñi ndem li olof di wax naan bu saaku deful du taxaw waa ndem mission bi moom dafa yaatu dafa kose dañuy bëgg rek gars yi moom xam nga xaw a ba seen jëmm yi mën a taxaw su ko defee ñu mën a nekk ci liggéey bi rek waa loolu rek la woon ñu ngi leen di siyaaraat bu baax a baax. yaay booy kon ci li ñuy dikk rek mooy bés bii nii ak xaal bii maanaam bés bi tey importance bi lan lay def ci doomu aadama bi ci teewe bi mu ko war a teewee. lan lay yokk ci moom lan lay defar ci moom. allahu akbar <laughs> ah laaj nga laaj bu am solo Baye Abdallah kontaan naa xol sedd na bu baax a baax. Euh, da nga fekk léegi rek ma siy waxtaan ak benn góor yàlla ndeysaan ah, dañ ko gëjoon gis lool sax mm, ci waxam tamit nee na gëjoon na daaru lool mu siyaar ma léegi rek ne ma ah ren naa ba teew ma ne ko lii nag lii nii la ma ne ko lii la ma ne ko ndeem pays bi mu ne ma naa ma ne ko du dee ci yow. mën na tamit bañ a nelaw ci yow waaye parfois mun nay gëmm di xef di xippi mais soo ñëwee ci bërëb yu mel nii ak daje yu mel nii dangay ngay amaat branchement te góor yàlla yi rek seen biir rek branchement la rawatina nag branchement bi nga xamante ne moom lañ fiy fekk muy ñàmbe borom daaru nga xam ne moom moom sanc moom la bàyyam sancoon dëkk bi mu liggéey fi liggéey bu rëy bii kon teewaayu tey bi Euh, euh, damay wax ni obligation la ci képp koo xamante ne yaa ngi woowee sa bopp yàlla yàlla waaw am na benn waay bu ñu bu ma dégg jamono yee mu ne ah euh, rende de daaru du bëri nit ndax fi ñu ko jàpp baaxul ndax affaire yi dafa dëgër xam nga xaal bi kose ma ne loolu du wax ki wax loolu mu ne ah ma ne ko da koo war a retirer ndax lii murid yi wax murid yi fi ñu taxaw ba naan dundu dem dundu dem dee dem ma ne ko ñun góor yàlla yi ñun waa kër Cheikh Moussa Cissé war nañ taxaw fu raw foofu ñun li ñu liñ ñu defal li ñu jot bu fekkee yëg nañ ko ak nu xaal bi mën a demee ak fuñ ko mën a def donte weeru koor sax lañ ko sampoon donte lu mu mën a doon ci weer ñu ko mën a def liy farata ci ñun mooy ñu bàyyi lépp lu ñu jàpp ñu teew ci bërëb bii loolu mooy ngor te loolu tamit mooy fulla loolu nag moo waral teewaayu góor yàlla yi fi nekk yëpp Baye Abdallah euh, ñu am ci mbégte nag bu baax a baax am ci mbégte bu yaatu ndax fii moom euh, euh, bërëb la ci biir bërëb ni àjjuma nekkee bës si jour yi weeru koor tamit xam nga mel ko ci weer yi bés bi tamit amaana euh, ngëneel googu ak ak ak ak ak tawféex boobu ak mbégte boobu la yëg ci bés bi ak ci bërëb bi jaajëf bëggee ak saayakun kon nag ñu doxantuwaat demaat ci yeneen rijaal ñu duggaat rek caméraman ñëwal ñu dugaat ni xool ci biir bërëb bi ñu ñëw nag ah fekk fi sunu benn jëwrin waaw ñu di ko màggal bu baax sang bi di la bëggee bu baax tey fasaat coloré bi bu wér a wér waa di wax ne waa xaqul mu bin TV ñoo ñëw def doxantu dugg si nag ci biir waañ beeg dugg ci fépp ngir lan bés bu tedd bii nga xam ne moo fi dajale góor yi ci woote wi nga xam mom la Cheikh Moussa woote won ñu ñëw nak ñuy wax laxasaay bi en tant que woote wi manam tay poids bi laxasaay bi di def ci ak yalla ngir jëriñ jamono deug la way borom baax waaw ginaaw buñu santé suñu borom bu tedd bi Cheikhuna Cheikh mohammed Lamine gey mi nga xam moy suñu wasila mo ñu yàggale ci yalla bañu ñu ko tay kon li yëpp mom la dañuy santaat bu baax di la wormaal ci laaj bu laaj bu am solo bi nga laaj ndax maanaam woote bi yàlla moom du ñàkk si lii laxasaay saxaaba yi waaw gis nga ko ñëwoon teewe ci li nga laaj mooy lan mooy poids bi ci ci wootab Cheikh Moussa laxasaay dafi doo loo xamante ne nii tey jii buñ koy wax maanaam amaana ñu bëri dañuy yaakaar ne waa ji day tagg boppam mais dafi di loo xamante ne nii mooy li nga xamante ne nii bi ñuy misaal ci jamono mooy fépp fu président war a teew wala njiitum réew war a teew rek wala buur bu war a teew wala borom fu mu war a teew rek ak saam waaw dafa am ñu ko fay jiitu daal gis nga ko yeesal bërëb ba yaatal gis nga ko pour ñi nga xamante ne après dañuy teew mën a dal seen jàmm kon loolu mooy njariñ bi nga xamante ne mooy laxasaay si gàttal ak saa fa yëgoon mais la ca biir moom ak saa dañuy wax ne woote bi yàlla moom laxasaay daf di loo xamante ne nii kat gis nga ko mooy poids bi nga xam ne tagg suñu borom ndax buñ taggee borom ba rek saxaaba yaa tax buñ taggee yonente saxaaba yaa tax aka kon ci misaal saxaaba yi moom aka saa mooy di Baay Faal ya aka kon sang bi foofu it dañ fay tibbaat te duñu génn ci laxasaay waaye dañuy ñëw ci actualité ndaxte maanaam laxasaay rôlu laxasaay bi tey lan moo waral jaam waral laxasaay ci bépp mbir ak laxasaay boobu ban njeexintal moom lay def ci jaam ci ruuxam ak ci jëfi saayaratam bi ñuy gis quoi ndax gis nañ fi jamono toll ndaw ñi ci perdition beeg yooyu mais tey maanaam li ngeen di incarné ci laxasaay ban njëriñ lay am ci société bi ci ndaw ñi ci mag ñi ci ñëpp. est-ce que dëgg la borom baax laaj nga laaj bu am solo laaj nga laaj bu am njëriñ waaw li ñuy wax naan gis nga ko waaw li ñuy wax naan poids li ñuy wax naan. gis nga ko manam manam manam liñu wax manam ci euh, gatal manam njariñ yuqku yax bi yax buñu waxe waxee yax yuqu baa tax comprendre nga laxasaay dafa do xamantene ni tay ji bu si li nga laaj ci jamono moy yoon bi nga xamantene ak yar dina ko amé yar ak yar ak defaru ndax dañu doonoon ay jam ñu reer dañu doonoon ay jam ñu wayadi jaam ñu tëxadi jaam ñu tëradi jaam ñu ay yàqu ci jamono daal ci waxin ndax bu ma waxee ci kàllaama Baay Faal amaana mooy loolu. yaa may dégg ak saafa yekoon sañ bi jël ñu tatagol ñu defar ñu won ñu yàlla ñu yëg ko am ngor am ngor delluwaat ko loolu yëpp ne yow yaa ñu moom sala yow la ñuy jaamu yow yaa ñu moom fii ak fañ jëm laxasaayu ndax mbir ci jamono comme ni nga waxee. lepp lo laxasaayawul doo doko am ndax saayrataan ci metti sax wala laxasaayawul xan sa bop ay deureum xan sa bop ay yere kay jamono fum mu toll ak sa di nga am li nga bëgg boo jàng métier saayrataan mu wax mo xam maçon ngay jang dina nga yéen ay kayit ay kayit ay ciment yu vide nga jaay ko ngir paas ñibbi laxasaay la do am deureum patron di lo jox mandat ndax lan ak yow sentu ci mandat ba mais akasa njariñ ma ngay sentu xam-xam ba na ci mom njariñ gana si moom leer gana si moom moom ngay séntu moo tax gis nga boo ca tegoo rek ak saa fa yokkoon benn diir da gis xam-xam bi day daal di toog ndax loo doonoon taalibeem doon doon sarañu ak saa fa jaajëf kon sang bi kontaan nañ te bëgg nañ kon bàyyi aare ñu ñu yaatalaat waaw ñu ngi ñu ngi ñu ngi teewaat dañu bëgg a est waaw kon bàyyi kon nag bisimilah gis nga noonu lay yaatoo waaw di sant rek te bëggewaat ndax tool bi noonu la waaw tool bi noonu la tey dañu gis nga doon ndaw ndaw ñu gis fi jamono toll tey boo doon dénk ndaw ñi ci maqaamay laxasaay bi nga toog yow li nga ci daj li nga ci yot li nga ci am njëriñ loolu noonu maanaam mbégte boobu noonu maam looy dénk ndawu jamono ci saayir ci nit ñee ci saayir ak ci ñiy wut yàlla. est que sang bi laaj nga lu neex a tontu du ma ne lu naqaree tontu lu neex a tontu nit ki dundam nii dundam boo ko ci laajee bu ciy wax nii dafay neex surtout ma ab jaam dinaan jërëjëfe Baye Mouhamadou Lamine Gueye jaaraama Baye Mouhamadou Lamine Gueye tey damaa xool Baye Gueye sama xool sedd guy sang bi ma tuur xewal nii ndax soo ñëwee daaru léegi ni nit ñi daan feesee fii dafa wàññeeku lu bari sax pas-pas aku, jamono teredi bagas yu bari yu bari sax yo xamantene lamin du ko laal yaa may deg ma gis Baye mu tok ci tante bi tangor bi nit ñi dar ko poussière bi yang may deg mu dekk ko tok fu mu toog ku ñew mu jox la sa wal ruku ki bege ki yege ki mom Baye Mouhamadou lamin Gueye ma gis mbektem ma gis parem ci yalla mu gën ma soñat fa ma tok lamay ci samay génération jamono jini moy nañ soobu ci yalla ba jeex tak he jambi bi sang bi mënoo ko fay sang mënoo ko fay bo don dag sa yap yaram mi diko musuy diko jox sa mënoo ko fay len rek nga ko mëna fay len rek nga ko mëna def len rek nga ko mëna defal xolam sedd moy lam la jox nga fonkal ko ko buñ la neen laxasaay nak Baye Fall jamono Baye Fall mo xew ci jamono Baye Fall mo xew ndaw ñepp bëgg soobu ci Baye Fall ko gis day tak ndombo yari ñoñ soli la khasay lolo xew ba ci yaay boy yi sax ba ci soxna yi ñëppay sol khasay mais lan moy bay fa ginaaw am nga chance daje sang bo xamantene dafa am ci leeru Cheikh Moussa liggey ci ba am ci leer la la ba tey ci ku melni Cheikh Modou Al Amin Gueye yang ngi may dégg mu defar la raxas la ba nga set jox la maqama gi bo demee ba pare wara a jëbbaluwaat ci mom jëbbal ko sa ruh jëbbal ko sa juróom-ñaari cër ne sang bi maa jox sama bop fi ba fuñ jëm ci ba ila yawmi dini eh na deggu nado ah. na deggu de bëri na ay ndaw ñoo xamante ne sooboon nañ ñu ànd ñoom ay diir gisatuñ leen du ci ñoom nag duñ ci ŋàññ kenn yaa ma gën a xam yaa ma gën a xam mais soññe la ne du luy lore laxasaay du luy lore nañ na ndaw ñi soobu fa la ñuy sauvé woo jamono ji jàmm mu bëggee mucc muccut ba set wecc kiiraay yi set euh, mbir yu suufe yi set nafsu yi set mu set si yow ba jeex takk ba nga janoog sa borom nga jeex tàkk ci yàlla dangay ngay laxasaayu boo laxasaayoo nag nga sax ci nga deugal nga jubal nga leral comme ni sa sang bi defé ngem sang bi waccul ba légui ah kenn du wacc amul wacc ah. baay bi tay la gëna paré pare jaayante baay bi tay la gëna paré dem cant tay la pare rukku dey tonga nga moy nala rukku na la tang jeur la def mom baay Mouhamadou Lamine gey ci tank yo la ñuy nekk nag loolooy baay bi mooy laxasaay baay bi moy baay fa mom la ñuy roy suba ak ngoon ak beccëk suñu noy yi suñu noy yi ci baay gey lañ ko def dañ koy fasal diko dagan mom baay gey mu yag fi lor monument ci kër ëtt Cheikh Moussa Niamé borom daaru Baye Gueye monument la ci biir ëtt Cheikh Moussa Niamé borom daaru ndax la muy liggéey ci jaam ñi la muy samp ci Cheikh kër Cheikh Moussa am na ci participation yu bëri mooy amaana waaw looloo fi jot a wàcc sang bi. ak saa kon kon nag Ali ci gindeeku bi li ñuy wax rek maqaamay malaaka du dog mukk ndigal kon nag yàlla nañ suñu borom defal ñu bañ a dog ndigal ndax loolu rek mooy te taw xiitu jaam kon bëggee nañ puissance bu wér a wér a kon mam ale ñu doxantu wat ok kon nag baali alaykum ñu ngi leen di ziar bu baax a baax baax di leen bëggee bu baax a baax baax Baye Ndiaga naka leer bu wér sant yàlla bu baax kay naka xitma yi naka leer yi mbaa lépp taw feex alhamdulilah salaamaaleykum ah Baye Barke ñu ngi lay ziare bu baax a baax a baax a sant <laughs> bu baax a baax a baax baax kon nag ñu ñëwaat fekk fi sunu mbokk taalibe sunu wëlëre muy bàyyi barka li barke li barkeel li ñuy sàkku muy barke li ñuy sàkku di barke muy bàyyi barka euh, ñu di koy ñu di koy ñu di koy tooñee wala ma di koy tooñee junior waaw junior kon nag bàyyi barka dañu ñëw ci daaru bi doon def doxantu ci képp ku ñu gis rek ñu tàllal la suñu micro nga am ay kàddu yu tuuti yoo ci tënk ndax bis bi bay Barka fi jamono bi toll fi jamono bi toll ndaw ñi fugu bi ñu andal jikko yi ngay gis ci bir ndaw yi par rapport ak li nga xamne mom la Cheikh Moussa wote manam tay bo doon soñu ndaw ñi ngir ñu mëna ñew wuy si Cheikh Moussa ci lan nga len di jaar. akasa ah comme ni nga waxe rek. comme niñ ko waxé maa lay di màggal di leen bu baax si tour ci jëm ci melo ci makama waaw jamono ji mom dafa neex lool comme sen iyan, ko waxee euh, jaam yi seen fugu ëpp na leen doole seen iñan ëpp na leen doole seen reuy ëpp na leen doole da ngay gis ko xamni day jëf dara sax bu jëfé ba paré ci lay rendre compte li mu def ben jam ci ben affaire de 50 cent génneel ko ben paaka cent jam ko da ngay def bo paré après soga rendre compte ci limu def lu waral loolu dañu am fugu fugu nak du xam-xam gis nga ko sëñ Fallou mbake nee xër xelu moko gën xelu moko gën jam nak fi ak amul sakina manam dal ina amul patience sabur. na birni limi def du jamu yalla waaw dal bobu nak moom la ñàmbe def ci ñun moo waral ñu jóge si suñu kër yi nga xam ne ay ventilo fa am ay kilim dakaar Dakar nga xam ne neex na lool ñu bëtt péage yi jaayante màjjal ñëw fii ngir delloo ko njukkal ndax moom moo def si ñun dal boobu moo def si ñun sakina boobu ba ñu mën a jaamu yàlla nga xamante ni dañuy yóbbu foo xam ni dañuy xalaat soog a def waaw képp kii def soog a xalaat mala nga taxawee képp kuy xalaat soog a def akasa yow yaay dëggi dëggi jaamu yàlla ndax jaami yàlla du leen dul kii jaamu yàlla yàlla nag mënoo koo jaamu te xalaatoo njëkk xam fi ngay teg sa tànk ngir jaamu ko Cheikh Moussa nag loolu lay def ci ndaw yi mi maanaam dal boobu te dal amuñ ko fenn fudul ci laa ilaha illa allaahu noonu la ko alquran waxee ci tudd bi ngay tudd laa ilaha illallah la sa la sa kër di tranquilliser wu waaye ana mooy tranquilliser xolub jaam bëri na koy turu te dal boobu newul ci moom billaahi wallaahi wa taalaahi bës bëri na koo xamante ni bu xëyee ba jant bi di sow mooy tudd laa ilaaha illallaah te dal googu newul ci moom kooku safara mooy këram kooku safara mooy këram ndax laa ilaaha illallaah boo nee dara new fi lu dul yàlla te amee woo dal amee woo sakina rëy dañul si yow ngis dañul si yow beew dañul si yow na la bir ne yaa tudd laa ilaha illallah waaye laa ilaha illallah tudd la billaahi wallaahi wa taala na nga tudd ko mbir boobu tudd la moo ko gën laa ilaha illallah kàddu yàlla jëmm yàlla la kon liggéeyee laa ilaha illallah ba xam tur bi jëm bi melo bi maqaama bi ginnaaw boo amee sang bu mat sang laa ilaha illallah tudd boobu képp ku ko defut tudd la képp ku ko defut na la bir ni yaa tudd laa ilaha illallah waaye tudd la kon fugg nga xamante ni moo sonal moo yàq lu bëri boo demee 100 mètres nga def fa sondage 98 pour cent ña fa nekk ñoo ngi rëccu lañ def rëccu nag li wees day metti noo def martaba bi dal sa kaw loolu nag lay dimbali jaam yi mooy wuy Cheikh Moussa ut sang bu mat sang mu def ci ñoom dal boobu noonu ñu mun a mucc si loolu waaw loolu rek laa ci am léegi jotaay bi ñu tax ñu ñëw fi mooy dal boobu la Cheikh Moussa def si ñun te fàtte la fal folleeku moo waral ñuy ñëw fii di ko delloo njukkal jërëjëf kon nag ale yaa dégg na ndaw ñi wuy si Cheikh Moussa ngir mu def ci def ci adab def ci dal bu sax waaw kon nag euh, ñu ngi ziaraat bu baax Baye Barka yàlla na yàlla barkeelal euh, ñu ñëw rek ci sunu jëwrin muy Maulana Cheikh Mouhamad Al Amin Sen Euh, cheikh bi ñu ngi lay ziyaare bu baax ci bés bu màgg bi ci ëtt ku tedd kii waaye itam di la ndokkeel ci yàlla ci darajay sa sang di cheikh na cheikh Mouhamadou Al Amine sang bi tey dañ ñëw ñu dégg ne ziyaar moo am baatu ziyaar lan lay def ci jaam ak lu waral jaam bi war di ziyaar بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم asalaamualeykum mbokk yi internet yi rawatina ñi nga xam ne ñooy suivre xaqul mubin family ñu ngi leen di ziar bu wér di leen magal di leen tattagal kenn ku ne ci turam ak santam di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo ŋànk tamit kër gi di xaqul mu biin waaye di ci woo ñëpp wax dëgg yàlla mu mu ci ci njàppandal gi ndax fu waay xew la ngeen jóg def seen ité ak seen pas-pas dafay dafay baax nag kenn ku ci nekk euh, wax dëgg yàlla dem ci ci xaqul mu biin mën a abonné di jot information yi comme ni ngeen koy waxee euh, di leen ci jaajëfal bu baax Euh, mu mel ni nag danga ma laaj ci li nga xam ne moo di ziar ziar moom maanaam dafay boo xoolee baatu ziar ak siyaadatu boo ko bindee ñooy tolloo baat ya ñooy tolloo ni ci niñ leen di bindee kon dafay tegtal ne ziar siyaadatu la mooy yokku saa soo ziaree na nga yokku waaye nag kan la ñuy lan la am. ba ziar boobu tekki ak yokku ci waa jooju nga xam ne moo jóg ngir def ko kon ziar nitu yàlla lañ koy defal rawatina nag fii ñu ñëw ci daaru kër Mor ja Cissé di ziar benn góor gu tedd di ziar benn góor gu mag di ziar benn góor goo xam ne ni mu def ak yàlla bokkuma amul ñu ko def de waaye bëriwut ci jamono te luñ gën a yëg sax ne ni mu ni mu jaaree jaam yi ni mu jaaralee jaam ci yàlla maanaam. ni mu jaaralee jaamu ci yàlla euh, bokkut ak ni nga xam ne tey ñoom ñu yi di doxe muy góor goo xam ne euh, wax dëgg yàlla ba muy metti moom la woon ba mu neexee tamit gars yi delloo nañ ko njukkal ba tey it mooma kon mu ñëwee ci dëkk bu mel nii dafa am lu ñu yëg ci moom lu ñu yëg ci moom nag nja cawarte lañ ci am ak yëg-yëg gu yaatu lañ ci am ndax li ñu yëg ci moom yàgg nañ di dukkat ci ay tarixa yàgg nañ di dox ci ay tarixa waaye lañ yëg ci kër Cheikh Moussa Cissé bëriwut ñu yëg ko fenn ndax yàlla cax nañ ci arxuraan ñaar fukki cax ak juróom yoo xam ne benn bu ci nekk bokkut ak sa moroom waaye kër Cheikh Moussa Cissé lañ ko firee alif laa miim zalikal kitaab laa rayba fihi hudan lil mustaqiin allazina yu'minuuna bil haybi ab cax la alif laam ra tilka ayaat loolu cax la ak yeneen ak yeneen ak yeneen bu ko defee nag buñu déggé né goor gi di Cheikh Moussa Cissé du doomu Cheikh Mour Khourédia Cissé bi nga xamné mom la seigne Touba seexaloon mom du jur Cheikh Moussa Cissé njame borom daru mom japp ay jam raxas sen xol ba mu set yobul len ci yalla lolé moñu bolé nak ci ziar bi nga xamné mom la ñëw ci daru fi kër kër dëkkam goor gi nak di Cheikh Moussa Cissé luñu gëna yëm ci mom mbooleem ko xamné mos nga ngank ab yalla, wala nga ngank ciobare yalla khata yonent nga. xataa koo mën a doon jëlee nañ sa dëkk nga dem ci beneen dëkk ñu doog laa nangul su ma ko tàmbalee ci aadama moo woote woon ajana daan daan am tawféexu ajana waaye ba ko yàlla namoo namee liggéeyloo da koo daq dëkkam yóbbu ko ci beneen dëkk ñu doog ko nangul te beneen dëkk bi mooy àdduna fii ñu ne ba mu lekkee pompe yàlla suñu borom da koo indi fii ci àdduna buñ ñëwee ci yonte la insa dañ koo daq dëkkam mu dem Bethléem ñu doog koo nangu wala Jérusalem yonent yëpp Suleymaan ak ba ci Ibrahima ñoom ñëpp dañ leen génnee ci seen dëkk ñu dem ci beneen dëkk ñu doog leen a nangul. bu fa yemoon sax xëy na mu neex waaye yàlla gën a leeral rek mbiri Cheikh Moussa Cissé ndax moom wax dëgg yàlla boo ñëwee Sénégal fii ku ci mel ni Serigne Touba Mbacké baari ah lañ ko génnee mu dem Touba ku ci mel ni El Hadj Malick maanaam gaay lañ ko dàq mu dem Tiwaawoon ku ci mel ñu dox làq ko nag mu dem Laayeen ku ci mel ni Limaamu Laay ñu dàq ko yoof mu dem yoof tongoor randal géej gi dëkk waaye góor gi nga xam ne moom lañ fekk si tey jàmbaaru islaam maanaam muy koo xam ne lu mu def ci diine kenn mësu koo def ci àdduna nga gis ne kon Cheikh Moussa siise moo woote ci dëkkam daa juddoo dëkkam jànge alxuraan dëkkam xamee yàlla tarbiya fa tarxiya fa tasfiya fa woote dëkkam ñu fekk si ko dëkkam mu dee ci dëkkam te kenn mësu koo génnee dëkkam kooku nag mooy ki ñu génnee ci shirku billaahi shirku billaahi mooy nga nekk fi yàlla bëgg fee nekk moo ñu tarbiya ci ruux yéegal suñu xa suñu maqaama ci yàlla ba doo ci ñu sikki sàkk alxuraan ndax alxuraan ak arab bokkul moo ñu xamal séparel ñu islaam ak alxuraan islam ak ak sharia ak kon bu ñëwee siyaar si jëmm jooju rek yoolu lañu yokk ci moom moo tax ñu koy féddale koleel ala kuli ah, kon bayaali ñu ñëwaat rek ci doxantu bi ñuy doxantu fii ci dalu xaqul mu biin di kër Cheikhouna Cheikh Mouhamed Al Amine Gueye di ñëw ci daara ji ngir def benn interview ak euh, ñi nga xam ne ñoom lañ fi fekk mu mel ni nag ci ki ñu ñëwaat mooy boroom conke siin muy Seydina Omar Sané di jàmbaar di ku ñu ràññee it waaye it di koo xamante ne maanaam mi ngi yëngu ci wàllu santé te yi mu ciy yëngu post ba mu ca am dayo ba mu ca am daraja ba mu ca am taxul dafa uti yàlla ba mën a jàppaat jaam di ko fajaatal ruuxam bi kon moom boole na saayir ak baatin kon kooku nag buñ koy dalal dafay doon loo xam ne lu ñu amal importance la ndax moom boole na temporel bi ak spirituel bi kon nag euh, sang bi dañoo xool li jàmbaar bi woote te ngeen jële ko ci Cheikhuna Cheikh Mouhamadou Al Amine Gueye muy siru baatu laa ilaaha illallaah ñu xol fi jamono bi toll jeunesse bi ni ñi dundé te ñu tàmbali diko gis mag ñi comportement bi ñi am par rapport ak li mag ya daan def ak yoyu tay bu jamono tollé fi spirituel bi warna dimbali temporel bi donte temporel bi amna président waaye am lu muy junjou foofu bëggoon nañ tey boo doon dénk ndaw ñi waaye itam di dénk ki yilif ndaw ñi muy président bi lan nga koy dénk li nga xamante ne yàlla cërale na ko maanaam nitu yàlla bi nga xam ne moom falub yàlla la ci baati bi waaw baxda ange billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi malik alxaqul ñuy siyaar sang bu tedd bi Maulana Cheikh Mouhamadou Lamine Guèye di yeesal suñu njëbbal itam ci moom ah, di siyaar mu Mubin TV di jaar ci yéen itam di siyaar njabootu Cheikhuna Cheikh Mouhamadou Lamine Guèye gi yëpp gannaaw bi ñu jiitalee suñu jëwriñu daara muy Cheikhuna Cheikh Chérif Mbodj waaw alhamdulilahi rabbil alamin daje bi ñu daje fii ci daaru ngir feddali suñu kóllëre waaye itam ngir wane suñu yitte suñu pas-pas suñu yéene diggante suñu wasila di Maulana Cheikh Mouhamad Al Amin Guèye waaye moom tamit digganteem ak njàmbe daaru kon ki ñuy fi wooteel muy njàmbe daaru doon na wax ni liggéey de mayema ci doy mu ne jaamu yàlla

mooy aaxiru mooy zaayiru mooy baatinu ba pare mu ñëw ne maa feeñ ci bépp mbër te képp kuy dox xam nga ni zaayir am na waaye itam xam nga ni baatin am na kon nag zaayir bi yàlla moo jël cëram am ñum ko dénk mu ne nag ñooñu boo leen xeebee man yàlla nga xeebal samay mbir waaye tamit yàlla moo jël baatinam am ñu ko dénk mu ne ñooñu tam boo leen xeebee man yàlla nga xeebal kon gannaaw ñaari màqaama yëpp yàllaa ko moom benn bu ci nekk mu am kum ko dénk rek ñaari ñooñ dañoo war a daje am fu ñu gisee rek jamono daal di baax jamono munta baax mukk ndere dañoo def li yenant bi waxoon Seex Ibra Faal féddali ko ci ëttu Sëriñ mooy liggéeyal comme si doo fi jóge waaye jaamul yàlla comme si tey nga fiy jóge loolu li muy féddali mooy Jomaay ak Cheikh Moussa Cissé Ndiambé borom daaru président Bassirou Jomaay fay moom la yàlla tey dénk lépp lu jëm ci wàllu saayru réew mi mooy institution yi muy administration yi muy def di di di buum di dindi di def ay nomination civilo militaire di joxe ay décret te loolu noonu yëpp ndénkaane suñu borom la suñu borom bu ko neexoon ni mu ko defee ci Macky Sall noonu la koy defee ci moom ni mu ko defee ci ab Ablaye Wade noonu la ko defee ci Macky ni mu ko defee ci ab du juuf noonu la ko defee ci Macky ni mu ko defee ci Léopold Sédar Senghor noonu la ko defee ci Abdou Diouf kon da ngay gis ni ñaari yi alla kuleal faaw ñu dem waaye nag réew mënut a defaru mukk ndere spirituel dafa bokk ci biir parce que spirituel moom mooy defar jikko yi suñu référence kenn rek la muy rasulu sallallahu alayhi wa sallam kenn taggu ko ci lenn lu dul lan yow Seydina Muhammad da nga am ay jikko yu rafet yu sel yu baax yoo xam ne dafa war a nekk ay jikko royukaay jikko yi lañ tagge Serigne Touba jikko yi lañ taggee El Hadj jikko yi lañ taggee tag taggee Limaamu Laay jikko lañ taggee Baye Niass jikko lañ taggee Cheikh Moussa waaye jikko yi lañ taggee Cheikh Mouhamadou El Amin jikko yooyu itam moo tax ñu ñëw fii daaru suñu gisul woon jikko ju sell jikko ji ñu fi indi duñ fi teew jikko yooyu nag allah kulli aal ñi nga xamante ne dañoo yor saayir faa ñu dem seeti nitu yàlla yi pour développement mën a am boo déggee ñu ne développement ñu bëri dañoo foog ni mooy nga am kër mooy nga am oto mooy réew mi am ay entreprise mooy réew mi am ay tali loolu développement la de waaye loolu mënut a am mukk ndere xol yi dañoo joxante xol yi joxante mooy lan nga am indépendance spirituelle indépendance sa digganteeg sa borom nga nekk nit ko am liberté liberté sa diggante ak sa borom ba yow lépp loo mbébét rek suñu borom daal fay def tampon loolu nag mun tam mukk ndere da nga am cheikhul murabbi cheikhul murabbi nag moo lay joxoñ spiritualité kon li ñuy dénk kilifa yii mooy lu ñu am am am maqaama ci zahir lu leen réew mi fal fal fal fal kilifa diine yi moom suñu borom moo leen fal suñu borom dafa wax ni yow Seydina Muhammad maa la tànn ci biir mindaa foon yi maa la ci biir mindee fii ma jox la sama sama xam-xam ma waxiw la jox la leeru maarifatul billah ku la nangul rek man man la nangul kon nag nangul Seydina Muhammad mooy nangul nitu diine yi ndax al ulemaaw wa rasulatu am di yaay ulema yooyu ñu doon yenant bi ñoom ñoo fi nekk ba tey kon lii defar jamono nekkul ñu ne dañuy tëgg un nouveau type de sénégalais pour lan bul sànni mbuus bul sànni ndale dafa am tilim tilim boo xamante ni moo nekk ci xol yi d'abord tilim boobu noonu la ñuy jël rek feddali ko ci ci ci ci mbedd mi moo tax boo demee ci daara yi gis daara yi set wicc soo demee ci kër nitu diine yi da ngay fekk lépp rafet su ko defee nit ñi ne waa daara yi la moo waral mu set daara yi lu tax ñu koy bale daa am lu jiitu ci nit ñi li jiitu ci nit ñi mooy dañoo dindi tilim tilim seen xol yi a mënatuñu jël mbalit di ko sànni ba mun mënatuñu jëf lu bon ci mbedd mi loolu nag bu ñu ko defee émergence ñëw na xol yi nangulante bëgg-bëgg doon benn xam-xam bi doon benn lu ñu jub si mu jubóog ñun loolu suñ ko defee askan pays bi day pays émergent pays pays développement mais si on nañ pétrole nañ gaz nañ fi gis ressources naturelles Nous avons gis des waaye suñu xamul fait des ci ressources yooyu day day doon ressources yooyu góor yàlla yi xam nañ fi mu jugee ressource sont rek lu def rek choses, lu yàlla dafa jël xam-xamam def ko ci doomu aadama ne lépp lu ma sàq doomu aadama moo ma ci gënal kon dañoo war a laaj suñ bopp pétrole boobu fu mu jugee dañu war a laaj suñ bopp gaz boobu fu mu jugee loolu nag képp koy góor yàlla yow xam nga loolu fu mu jugee kon ku amul xam-xam boo ko laalee te amoo benn orientation mbugal lay doon ci yow du doon mukk loo xamante ni da jëriñ kon nag pour sénégalais yi jëriñoo ko ñëpp jëriñoo ko ndax loolu yaramu góor yàlla yi la yaramu góor yàlla yi moo tajiliyaat noonu kon képp ku koy laal nanga nga xam siru xam-xam bii sinon dëkk yi ko am yëpp te amuñu xam-xam bi ay fitna moom moom la leen jural pétrole am na fii fitna pétrole gaz am na fii fitna parce que investir investisseurs yi entrepreneurs yi réew yi ñëpp dañuy mouvoir vers ce pays parce que dañ naan am na ressource naturelle ressource naturelle lañ wax ressource mooy koom naturelle bu jóge suñ borom yàlla nag bu la xamulul mënul def ci moom leer booy tax ba yow boo boo bënnee suuf si nga fekk ko fa kon nag li ngay bënn di ko fa fekk ba koy puiser alalu suñu borom la mu dénkaane ko góor yàlla yi mu daal koy am fu mu kastre denc ko foofu lépp li nga mën a def pour xam ko rek mooy nga dem ci nitu yàlla mu gindi la jàppale la lépp loo mënti defati ci wàllu temporel affaire yi baax bu loolu amul maa ngi leen di waatal ci yàlla ci màggaayam barki lazi laa ilaaha illaa huwa xanaa ñu am sens ci nguuru ci nguuru Bassirou Diomaye Faye gii mu am ñu xam yàlla su loolu amul kenn mënut a explorer dara ba mu taxaw mais pour mu taxaw dëggantaan njaay il faut ñun ñëpp ñu delluwaat xol yi ci yàlla delloo xel yi ci yàlla suñu ruu dund yàlla lépp lu ñu laal rek mu barkeel bu loolu amul barke amul. ak saayekun kon Baye Ali suñu déggee kàddu gi yëpp li mu tënk moom mooy maanaam nañu defar nit d'abord mooy nañ defar nit buñ defaree nit rek bu ko defee gis nga ko maanaam jikko yi day daade taw feex kon nag sang bi ñu ngi lay màggal ñu ngi lay bëgge bu baax di wax ne li ñu njottoon lépp am nañ ko ci biir dal bi di ñaanal kilifa bi sunu borom defal leen taw feex ci barke Cheikh Mouhamadou Lamine Gueye jërëjëf